ربي بما يسرون هزم من فجاء بجاه noonu ni ñu bàyyeelee sëñ Touba. ñun ñuy bàyyeelee sëñ Touba. dañuy fas yéene lu ñu weesu mu set. dañuy fas yéene lu ñu weesu mu set. dal fi Thiès. waaye dal fi Thiès. yeggalee ko ndar. yeggalee ndar. te loo weesu mu booy. te loo weesu mu booy. amul sëñ bi njariñ. سخيدرا أيدرا أيدرا تي سرين توبا مبكي موم أحمدو cëy maam Cerno Ibrahima Fatim Mbakke ba Bambay dem ca géej ga Cerno la dénkoon gaañ yi cëy àllin ci ndigalu Seydina mu karamu moom Cheikh Aydara Mbakke Kënzul Baatinu 244 fas yéene amalati seen guddi plateau spécial la nuit du 17 safar fële ca Touba Madiana kër Serigne dara Mbacké waaye Kënzul Baatinu 244 di ci ànd ak la chaîne leader la lumière de la planète Makhama bi waaye di ci ànd ak sponsor ndox bi di Eau Sultane di ndox bu neex te sell te mbokku taalibe yépp préféré ko ci màggal Touba gi waaye ci guddi googee la nuit du 17 safar bu 8 jotee. Kënzul Baatini 244 di ci amal ay thèmes ay waxtaan yu am solo ci lu aju ci màggal Touba bi ak ci jaar-jaaru Serigne Touba bi kon ci guddi googee Kënzul Baatini 244 dina ci dalal Cheikh Adama Ka moom di Cheikhu Seydina mu karamu fas yéene ñu waxtaanal li aju ci màggal Touba bi ak it jaar-jaaru Serigne Touba waaye noonee la ñuy dalal tamit la kuréel fédérale de la fédération Xidmatul Xaddim mu ànd koog jëwriñ Ibrahima Ndiaye di ci dalal Ahmadul Xadim bu Serigne Aydara Mbacke di ci ànd ak Serif Mukaramasi Diouf. yéen ñii de xetug yàlla ngi may xeeñ noonu la toppee ci ñoom beeg si ci ku tedd si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bu mu egsee tamit sëriñ bi xamal ko ne noo tudd mu ne ko man de yar sa xànc laa tudd maanaam sëriñ bi wax ko li fa moom mu wax sëriñ bi la fa moom mu xam ne kii ko mooy moom mu daal di fa mbiram joxe. soxna Mame Diarra bi sa jaaree li mu am pas-pas moo ko ko ñox te pas-pas koom ci la am na lu daan jaayanteeg Maam Mor Anta Sali soxna Fatou Issa Diop am na lu doon jaayanteeg Maam Mor Anta Sali ba tax moom tam lu indi Maam Cerno Birahim te xam ne Maam Cerno Serigne Touba ñaar ñi wër-wër loolu garab la boo fekkewul tàmbali ba doo xam ko jiitu noonee la ñuy dalalee jëriñ ab Ablaye Faye moom di jàmbaar lool ci ëttu Serigne mu karamu 244 te aju ci waa kër Cheikh Omar mbay moom di seexul murabbi bu Serigne Aydara Mbàkke kon duñu fàtte tamit sëñ docteur ñaa moom it di jàmbaar lool ci wàllu médecin bi kon moom it dinañ ko fas yéenee dalal ngir mu waxtaanal ñu lu jëm ci santé ak it màggal Touba bi kon nag mbokk taalibe yi Kënzul Baatinu 244 ànd kook mboole seen invité mi di woo bépp mbokk taalibe di woo képp koo xam ne rek ñëw nga ca màggal Touba gi bu la kenn nettali la nuit du 17 safar fële ca Touba Madiana Mbaar ya su 8 heures jotee ca kër Serigne Aydara Mbàkke kon xaadir yaay yi tamit ñoom nee nañ du dem bàyyi ñu kon noonee la soxna Suwaado Mbàkke di fa teew ànd mbokk mbokku xaadiriya yépp kon maam Cerno Mbàkke ak sëriñ Ahmadou Dame Faty Mbàkke ñoom ibnu sëriñ Aydara Mbàkke dinañ fa fas yéene teew waaye dinañ fa amal tamit ay taalif yu am solo bokkoon ci askanu wolof bu tedd nekkoon tamit ku daan dimbali yoonu murit ci wàllu koom loolu moo taxoon mu joxe woon alalam ak léppam cër bi mu amoon nag ci yaatal yoonu murit dafa rëy ba nu jàppoon ni bu doon sëriñ bi moo doon bu doon sëriñ bi jëmm la Ibra Faal moo doon loxo bi ak i tànki sëriñ bi. kan mooy Cheikh Ahmadou Dame Faty kooku kenn la ci njabootu Cheikh Ibrahima boroom borom Darou Mouhty Cheikh Dame Ahmadou Faty maam Thierno Birahim mi ko tuddee magam ju mbokkal ndey ak baay. muy sëriñ daam ahmadu faati te sëriñ bi doon wax naan bu dundoon kenn du ma xam ngir mbiram yàllaay ka ko lëm mu ne ma waxtaanal ci sëriñ Touba te su may waxtaan ci sëriñ Touba li may tàmbalee mooy sëriñ Touba mooy ki nga xam ne kenn xamu ko ku kenn xamul nag buñ nee nañ wax ci moom mooy nañu wax lu kenn xamut wala wala nañ noppi waaw sëriñ Touba mooy ki kenn xamul kenn tanewu la ci muy ñent yoy seytaane banex bakkan ak dunia wala ñu mën ko wax ginar gi xar bi nag wi ak gilem gi yi nak moo tee jaam bi àgg ci borom kep ko xamni nak nyari kamil la mom ñent yi ni lay tarbi ak njabotam ndax ñent yi ni ñaar yi lañu gëna soxla muy ndaw ak jigen melub murit moy mu bayyi bëgg-bëggam gépp ñew ci bëgg-bëggu yalla gi ta pour murit bi bayyi bëgg-bëggam gépp ñew ci bëgg-bëggu yalla gi fay E borom bi naan lan tanaalul birra xattaa tunfiqu nit du baax lu dul mu joxe lim gën a bëgg nit koo fi laaj lu mu gën a bëgg boppam la wax te joxe sa bopp mooy mahabba lépp rek aju ci màggal Touba bi ngir mbokku taalib yi gën a xam lan moo leen indi ca màggal Touba kon mbokku taalib yi Kënzul Baatin di leen jox rendez-vous la nuit di 17 safar muy samedi su 8h jotee fële ca Madiana di ci ànd ak la chaîne leader maqamati TV la lumière de la planète. ak sunu sponsor bi di Eau Sultane di ndox bu neex te sell te mbokku taalibe yi préféré kon mbokku taalibe yi ci guddi googee di la 17 safar dinañ fa amal ay animation sëñ Mbay mu karamu dina fa teew waaye sëñ Njaga Alfa Ruux dina ànd ak ñun ci plateau bi waaye kuréel fédéral bi dinañ fa yéene barkelu ak Ansaarullah kon bu leen ko kenn nettali laa ilaaha illallaah الله لا إله إلا الله ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñi nelaw seen xol yi dellu seete ku réere mbir laaj ku xam la mu xamul dara ay dara jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul